xamal li nu duggoon doon ci gaaw a génn l'observateur ne sûreté urbaine mi yore woon enquête bi jeexal na ko fukk ak benn doomu aadama lañ ca tudd ci yooyu force spéciale taal réew mi lañ bëggoon ba tax ñoom ñëpp mbiri terroriste lañ leen di toppee journal Futur Média bi yokk ci dinu limal turi fukk ak benn force spéciale yooyu boole ci fësal ci aw xëtam nataalu Ousseynou ñu koy woowee akee naton di waa ji nekk biti réew doon leen financé lii tax ba jamono force spéciale bëggoon na taal réew mi bu seeni pexe juboon mbiri terrorisme la leen di tuumal les éco ne kenn ci ñoom di morgue yi téléphone bi mu yoroon bokk na ci li daaneel gaa yi yéenekaay bi ne la tax ñu wax ko te itam te tax ñu war ko gëm moo di ne portable waa ji bi ko gaa yi dégloo loxo dem na gémmeñ ndekete gaa yi kër Aliou Sall bépp Auchan bu nekk ci Dakar RTS ak mboolem entreprise française bu nekk ci Dakar moo nekkoon seen cible cible bi procureur de la République ratewul benn yoon moo di Ousmane Kabiline Diatta le Soleil national xëy dinu wax wax kan mooy dëgg-dëgg ji waaye waaye yeewi askan wi bàyyeegunu journal Le Mandaane gaa yi nee nan seen manifestation bi nu jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin bi nu dëgmal kenn mënu leen teree def liñ jot a def ñoom waa yeewi askan wi ci àllarba bi ñu weesu ci la Le Témoin xëyaat di wax journal bi ne roube national bi waa yeewi askan wi doon amal am naka lees waxul ndax nag am na ñaari étudiant yu bokk ci parti Pastef yun ca jàmm am na itam étudiante bu bokk waa yeewi askan wi doon amal ministre Oumar Gueye ne ku jéggi daal dañoo woote woon doxu ñaxtu kenn wuyu leen ca moo taxoon ñu doon amalub ruube national te loolee nag defuñu lu dul tàngal askan wi Ousmane Sonko mel ni ku koy tontu dinaan ko sa xalaat rekk nga wax ndax nag ñoom gisuñu loolu li ñu gis moo di askan wu maase doyal ci njiitu réew mi fi nekk li fi nekk booba ak léegi te neexul ku jéggi moo di parrainage bi tribune yéene kaay ne nit yi ci jot a faatu ñi ci amee gaañu gaañu ba ñin ci teg loxo doy na sëkk ngir layal lu fi jële bi le quotidien lu aju ci parrainage bi kay gi defoon nañ ci recours ca cour suprême waaye dañ koo gàntal bataille suprême ba lan ñàkk lii tax ba maître Abdoulaye Tine mi ko jiite woon ne du ca yam ndax ca commission CEDEAO la ñuy ngir jéebaane fa président Macky ak parrainage bi mu fi teg moom président Macky Sall bëgg a jéebaane nguuram le journal dafa samp laaj ne fan la ñi ko daan tontul nekk jamono ji muy Mame Mbaye Niang Abdou Mbow Thérèse Faye Diouf Seydou Gueye ba ci Ismaïla Madior Fall L'As Quotidien lu ci mën di am daal président Macky Sall moom jamono ji moo juróom-ñetti milliards ci xaalis CFA la teg ci table ji ngir soppi xar kanamu corniche ouest bu Dakar enquête yéene ne Dakar kay président Macky Sall dafa bëgg a dox ci kaw Khalifa Babacar Sall ak Barthélémy Diaz mi maire bi ki fi nekkoon maire bu Ziguinchor moom la direct news xëy fésal ci xëtam journal bi ne Abdoulaye Baldé mi waa Benno Bokk Yaakaar samp ca Ziguinchor fi mu toll war naa xoolaat boppam ndax nag bu weesoo Ousmane Sonko mi leen fa déjjatee ci élection gox-goxaat yi nu weesu moom Abdoulaye Baldé doole jamu amoon li am ba des moo di tabaski ñëw na ba noppi si du quotidien nguur gi nee na lu aju ci wàllu xar yi dina doy ba des lii tax ba yéenekaay bi ne xar yeek tabaski gi nguur gi mi ngi ciy dalal xelu askan wi xel xalaatut ñuy wax ba daaneel te waxuñu ci téeméeri at bi fi Seydi Aji Malick Si bàyyeekook léegi ndax nag Serigne Aline Gueye moo ni woon bés bi fi Maodo jógee képp ku sëpp sa xalima ci daa te bindoo ci loolu sa xalima sànku na sa daanaax saay journal bés bi la journée atum 1922 la woon ba 2022 def tey téeméeri at kanfoori ba boroom xam-xam ba boroom parasol ba bàyyeekook léegi bébé Aïda moom ñeenti fan a ngi nii bi mu fi bàyyeekook léegi libération yéen a kaay ne moo waral ba enquête ba jamono ji gën nañ koo taral am na sax ku ci enquêteurs yi jotoon na teg loxo gannaaw ba lañ ko bàyyiwaat libération yéen a kaay yokku ca ne demu ko bébé gi dafa méngooku mbiri bébé caane mi réeroon ci atum ca jàmmalaay te mujje woon koo gisaat ca ngeexoox ca loxoy mbokki yu bëri jamono ji li ñuy jàmbat l'observateur xëy a përi yu ñàkk kàttan ci seen néegu sëy moo ngi tas dëkk bi